cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir mi toog a jotaayu xaadimu rasul yàlla na fi yàgg loolu te te yàlla defal ko ndam ci liggéey bi mu yëkkatiwaat kàddu yu ndigal teg ko ci loxool rakkam ji nga xam ne yàgg na koo jox ndigal muy sëriñ maam moor Mbacke moom sëriñ Falilou mu fegoo ak bokk yi sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif mi ngi fi toog ak sëriñ Bachirou Mbacke moom sëriñ Abibou ak waa rabitatul madaris bi nga xam ne ñoo jiite alxuraan ji. kàddu yi war a doon kàddu yoo xam ne day jëm ci delluwaat ci sunu borom subaanu wa taala ni ñu ko baaxoo defe mu jox ndigal sëñ maam Mor mu war a soññaat bokki jullit yi bokki taalibe yi nu tàllalaat suñu loxo sunu borom subhaanahu wa taala war a dajawaat gaaw bii ñu jëm fukki fan ak juróom-benn ci digg wi war a tolloog ñaar fukki fan ci weeru tubaab ni ñu ko baaxoo defee fii ci biir Touba loolu nag moo tax dañuy jox kàddu gi sëriñ maam Mor moom sëriñ Falilou. mu yëkkati kàddu yi sëriñ bi bu noppee danañ jox kàddu gi sëriñ Cheikh Mbacke Sëriñ Abdou Latif bu noppee ñu jox kàddu gi sëriñ di Jaxate mi nga xam ne mooy wax ci turu madaarisul alquran bu noppee nañ jox kàddu gi waa daa daayira mu xaddamatul xidma sëriñ Fallou Mbacke mi ngi fi teew teewal fi waa daayira bi dina yëkkati kàddoom kon nag ñun ñëpp nu ànd déglu sëriñ Mamour Mbacke moom sëriñ Falil. wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada wa ridwaanu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi dellu siwaat di jégguli kàddu yi yi nga xam ne ndigal moo nu ko teg maag sama bokk yi nga xam ñoom laa àndal te yàgg koo ànd ak ñoom muy mbooloo mi nga xam ne mooy rabitul madaris alxuraaniya fi Touba te sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ lu jiite leen ak sëriñ Basiiru Mbàkke mu sëñ Habibu ak sëñ Xaadi Jaxate ak ñi ñu àndal ñëpp ànd ak ba tey boo waa Muxaddamatul Xidma yi nga xam ñoo nekk ci jumaa ji nga xam ne fa la liggéey bi tàmbalee ba jàll fi muy jàll fépp ànd koog mbooloo mi nga xam ni kilifa yi nga xam ni ñoom la fi sëriñ bi jabal boole ma ak ñoom te yàgg maa boole ak ñoom lool ci liggéey yu mel nii muy sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou Latif ak sëriñ Mountakha Mbacke Pakala ak sëriñ Cheikh Khadim doomi boppam ñu di leen nuyu nag di leen jotal ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci mboolem taalibe yi waaye jëm ci mboolem jullit yi mu wax ni mi ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen jottale ay cantam ak i ngërëmam ak i ñaanam di wax ni dafa dellusiwaat di feddliwaat li nga xam ni kilifa yu tedd yi ku fi jiitu daanañ ko def na naka jekk muy jàng alxuraan bi nga xam ni at mu jot danañ ko def ñaari yoon ci at mi bu njëkk ba di njëlbeenu muharram ba ci des di njëlbeenu ko rajab waaye bi ci des di boo xam ne bi ñoom ñoo koy jagool seen bopp saa buñ toogee ba xam ni àdduna soxla na ko réew mi soxla na ko doomu aadama yi soxal nañ ko jullit yi soxla nañ ko ñu joxe ndigal ñu teewlu tuub sàkk sarax balonte àq dellu ci téere bi nga xam ne mooy téere suñu borom bi nga xam ni lépp lu waay bëgg boo ko jàngee fas ko ci suñu borom dana la ko defal waaye dellu ci xasida sëriñ bi yi nga xam ni ay ñaanam la ak i toroxlam jëm ci yàlla nga xam ne moom itam biir nañu ni lépp loo ci luñ ci sàkku nee na suñu borom defal na ko ñaari sàll yooyu la wax ni dafa bëgg nu waraat ko gaaw bii di ñëw di fukki fa ak juróom benn ci weer wi ñu nekk di weeru digg wi te def ko defeen wu sell jublu ci rek ci njëlbeen sant yàlla ci xéewaram yu bari yi nga xam ni mi ngi nu koy defal ci saahir dina ko defal ci baatin mu ni itam dafa xam ni lépp lu waay di sukkandikoo di ci ñaan suñ boroom la ca gën a rëy mooy téere bi yàlla bi ni mu ko waxee ci ginnaaw la ca topp ndax yàgg nañoo wax ay aaya yu tegtale loolu inna lazina yettoona kitaaballahi wa aqamu salaata wa anfaqu mimmaa razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura kooku suñu borom moo ko wax ci alxuraan kuy jàng alxuraan yonent bi itam wax ni képp koo xam ne ki jàng jàng araf ci alxuraan araf woowee dañ la ko ba muy fukk waaye daal di wax ni ci xër xëram ga ak yéen gu yéen julli ci jàmm mu ni du ma ni alif laam mim araf la alif benn araf la laam benn araf la mim benn araf la sëriñ Tuubaa itam wax wax ci wax ci xasaayit lu baree baree bare ci njariñu alxuraan ak jàng ko ak jariñu ci xiraatuha kan si wa jaahi wa isati uniltu biha kaw ne la dallaahi saa sidqi ak yeneen bayit yu baree bari yoo xam ne jataay jataay bi ma yëwu ko te xam nañ ko baax yàgg nañ ko fay wax kon nee na ci loolu la sukkandiku bëgg bu gaaw bi ak see na ma ko daan defee ñu bokk toroxlu ginnaaw buñ jégguloo yàlla setal suñ xol laabal ko yéenente lu baax jéggaloonte sàkk ay sarax jox ko ñu ko aajowoo ñu jël téeréb suñu borom bi nag tàmbale ko ci jumaay Tuubaa ji lim yuñ ci luñ ci man lu mu gën a bare moo gën ñu tàmbale ko ci jumaa ji lu mu gën a feese moo gën bat àgg ci jumaa yi ci dëkk bi yëpp ak jumaa yi ci réew mi yëpp ak jàkka yi ak daayira yi rawatina daara alxuraan yi fenn fu nekk lu ñu mën a jàng ci ay lim ñu jàng ko fa te jublu ca sant yàlla dollee sant yàlla ci xéewal yi nga xam ne ngi nu koy defal dollee ñaan itam ñaanal réew mi ñaanal kilifa yi diine yi ñaanal njabootu Serigne Touba gi ñaanal jullit yëpp ñaanal adduna si yëpp suñu borom def fi jàmm def fi xéewal buñ ci jugee ca loola moom ñun ñun ci suñu bopp ñu ku ñun tam ñaanal ko moom ci boppam li nga xam ni mooy yéenam juré ji nga xam ne moo nekk ci moom te njàgg koo xam ci moom te moo di moom lim yéene yéene ko boppam yéene ko njabootu Serigne Touba gi muy góor muy jigéen yéene ko taalibe Serigne Touba yi yéene ko kilifay diine yi yéene ko julit yëpp yéene ko réew mi ci jàmm ak salaam ak ci xéewal ak njariñ lu taa dakk adduna ak àllaaxira ñun tam ñaan ko ñaanam googu nga xam ne moom la yéene bindee fi suñu defal ko ci lu kawe njortam mu nekk mu yàgg fi lool amug wér ba sémb yim sémbal Serigne Touba mu defal mu defal ko nam ko bëggee ten fekk ko ñun ñëpp ñun ñëpp dañ ko bokk ñaanal loolu loolu mooy kàddu yi nga xam ni moom la suñu bi doon nañ ko nañ ko jottali su ko defee njàngum alxuraan mi ña ko daan jiite ñoo koy jiite mooy waa rabita bi ànd ko ñe ko daan àndal ñëpp ña njàngum xasaayit mi sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaay bu moo ko jiite dañ ko dañ ko yëgal moom itam mu yëglu ko nam ko daan yëglee defe ko fa mu ko daan defe ndax ñaar sëriñ bi neen amul lu ko ëpp bii mooy alxuraan bii mooy xasaayit yi te sëriñ tubaa ñaar yu leen fi bàyyil nee buñ ci jàppee lépp luñ bëgg nag àdduna ak danañ ko am nañ ko daan waxee itam nag buñ jàpp ne dañoo dàkk ay bis rek di ci jàng alxuraan déedéet fii ci Tuubaa nañ ko waxe woon bis bu set ay kuréel a ngi fi yoo xam ni li ñuy wàcc ci alxuraan mën naa yor mën naa yor adduna si waxuma réew mi waxuma laa dëkk bi kon lii dañ koy def rek ngir lislaam moo moo demee noonu lépp lu lu lu ko yitteel su ko defee da koy defaat da koy defaat ba ci julli juróom julli juróom kenn ku nekk xam ne ni jàkk jëlëg gi gën gën a jege nga koy defee bisub set waaye bu ajuma jotee dañu boole ñëpp yóbbu nañ ci jumaa yi ñu julli ajuma bu korite jotee ñëpp daje ci benn béréb julli korite bu tabaski jotee noonu kon ndaje yooyu noonu rek mooy mooy njàngum alxaal mi nga xam ne moom la sëriñ bi woote na ko kilifa yu baaxee daan defee ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ñu aw yàgg noo digal ñu yàgg ñu yàgg ñu yàgg topp ndigalam bi barakeel xadim waa isatil maxdum sallallahu alayhi wa sallam wa axiru dahwaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi bokki taalibe yi bokki jullit yi sëriñ bi daa mel na kàddu gi doyoon na sëkk ndax jot na rafet na matale na lépp leer na tabarakallah yàlla ko yàgg a jottali ki la koy jottali loo yàlla yàgg ànd liggéeyu sëriñ bi moom ñëpp nu ànd liggéeyu sëriñ Tuubaa bi ba kenn ko nekk la nga ci yéene nga man ko niñ koy waxee mm. tabarakallah lépp rafet na sëriñ bi rek la ko bëggee woon xam naa kon kàddu yi ñu cee dolli du bari kàddu yi soññee rek la ak gën a leeral xam naa nun bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp xanaa ndigal jib na te ndigal lépp sunu njëriñ rek la ab jullit ku gën a jéggalul yaa ngi koy dimbale ku ko ne ñaanalal sa borom yéen ñu ko ndimbal ku ko ne saraxeel yéen ñu ko barke te sarax boo xam ne day lambale addiye daa gën a rëy te loolu lépp daa am ci liggéey bi kon nag ginnaaw bis bi ni ñu ko daan santaane ni ñu ko ni santaane da bëgg kenn ku nekk noo ci daan jàppee nga fas ko yéene yokk bu baax a baax a baax sëriñ wax na njàng njàng meeg doxin wi lépp xanaa ko ñaar rek la fàttali bokki taalibe mooy wàlluy xéewal yi ñu fi war a andi war ko terale ñuy jàng lu ci waay daan def loo ca mën a dolli na nga ko dolli ndax lu ci waay def sa njëriñ rek lay doon ak li ñuy tudde ab sarax waaye ñu tudde ko addiye ab taalib lu muy def ci Tuubaa na ko tuddee addiye ndax addiye kat daa mel ne daa gën a rëy sarax dama mas a dégg ko laaj sëñ Sàmbay ne ko addiye ak sarax lu ci ëpp doole mu ne ko ki ñuy sarax ak ki ñuy jox addi ni ñu wutee rek ni la ñu wutee ñoom ñaar kon li ñuy def nan ko jàppee addi Serigne Touba am na ko mas te yéen ne Serigne Bassirou mas ko wax ne ko te ab chauffeur la ñu jàppoon ko ay mu jàpp ko ci Fuuta mu ne Serigne Bassirou bi mu waxtaan ak moom nee na ko lépp loo génne di sa poos war koo joxe ak foo ko mën a jëmee jàppee ko addi Serigne Touba boobu ba Serigne Touba naa la ko fay kooku yërmande bi yaatu loolu kon at yi ñu war a indi fi ñuy jànge ngir ñu di ko dimbalee ñi ne ñi ko ñi ca loru ñu deew doole ñi loolu itam sëñ baa ngi koy fàttali ndax lu am solo la lu rëy la lu mën a yokk njariñ ci li ni njariñ la kon lu ci waay man na ko def indi ko fañ ko daan indi ca barabu jullikaay ba daa nga fekk ña ko daan saytu muy waa Muxaddamatul Xidma te kenn ci ñoom a ngi fi xéewal yi ci biir jumaa ji lañu daan indi ci wetu sow gi féete sorol sorol bu ndaw bi ci sow ci wetu féete kër sëñ Fallou moom itam ña fa daan nekk danañ fa nekk te danañ ci wax seen i kàddu xanaa nu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax wàllu berne yooyu ñu ngi ciy soññi bu baax Hizbut Tarqiyyah lañ tàllal loxo ndax daan nañ ci dox jéego yu yaatu yoo xam ne ñoo ko daan waajal seen bopp toppatoo ko seen bopp defar ko andi ko ñu ngi leen ciy séentu waaye képp ku ne ci dëkk bi te bésub keroog sa dépense bu kër mat ñaari dépense benn ba bàyyi ko ci kër ga ba ca des togg ko andi ko ci jumaa ji ñu doon jàng alxuraan jariñoo ko bu ñu ko defee noonu dana yaatu dana matale te njariñ liñ ci di séntu dana ko yombal lool dana ko yàkkale lool ndax njariñ li moom biñ jéggee ndigal li te fasoo ko rek la njariñ li tàmbalee tab bi ndax sëriñ baa ngi teewe lépp sëriñ moom bi sëriñ bi tax ñu di ko def mu jëm ci suñu borom umpale wuñ dara te yéene yi la ñuy tàmbalee fay bu jëf ci ñëwee ñu gën a yaatal pay ga kon nan tàmbalee yéene di fasoo te boobaa jëf ci luñ ci mën nu def ko buñ jàngee alxuraan ak jéegu yi mën a dox jàng xasaayit ak jéegu yi mën a dox te yàlla rek tax ak sëriñ bi nu bokk ci lañ cee fas ak di ko ci yéene ñaan jàmm ci réew mi waaye ñaan ndoxum jàmm nawetub jàmm bu matale bu barkeel bu ànd ak xéwal yaatu yoo xam ne dañ koy ñëwaat lépp ci bi mi ak ci njaboot gi lépp mu tey tey tawfeex salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi eh, noonu ngeen ko déggee mu bàyyikoo ci eh, sëriñ bi wax ni gaaw bii di ñëw nañ ko def bisub tuubal suñu boroom jéggalu ko sàkk ay sarax baloonte ak te xëy ci téere bi njàng moomu nag ñu tàmbalee ko ci tuubaa tàmbalee ko ci jumaa ju mag ji nga xam ne kon mbooleem li ko wër ci ay daara ñoom seen ndigal mooy nañ ci ñëw ci jumaa ji yeneen barab yi nga xam ne sori na it muy yeneen pénc yi fu fu fi doon ña fa nekk taxawu ko ceroon kilifa ga fa nekk te nekkal fa Serigne Touba eh, loolu muy ci biir dëkk bi su dee ci bitti dëkk bi it Euh, fu mu fi doon moo xam daarul mooti wala njaareem poroxaan wala yeneen barab yëpp bépp barab boo xam ne jëwriñu sëriñ baa ngi fi sëriñ bi mi ngi jaarale ci moom ndigal loole euh, yeneen yëngut yi nga xam ne daayira yi ñoo fi nekk ak représentant wu xalif général de murit yi sëriñ bi soññ na leen ci ndigal li laabiré ci it mboolee mbokkum jullit moo xam ne mën na koo ànd ak ñun bis boobu muy bisub jàng alxuraan sàkk ay sarax tuubal suñu borom jéggulu ko balwante ay xaq sëriñ bi mu ngi soññee ci loolu ni ko kilifa yi waxee nag euh, bu dee ci tuubaa ci jumaa ji lay tàmbalee su ko defee euh, waajal bernde ya luñ ci man ñu def ko euh, indi ci jumaa ju mag ji waaye yeneen penc yi nga xam ne ñi ngi koy def yi ña ngi ko fay defee it ña leen wër ñu taxawu leen ca ba sëriñ bëgg na bis boobu ña nga xam ne ñooy yore njàng ma ak way néew doole ya fay dem yëpp ñu fekk fa bernde yoo xam ne dana leen mën a teral naka noonu it ci lu génn dëkk bi it bëgg na daal fépp fu ñu koy defee ña fa nekk taxawu leen. kon loolu war a nekk gaaw fukki fan ak juróom-benn ci weeru digg wii tolloo ak ñaar fukki fan ci weeru tubaab bi eh, sëriñ bi kon di sàkko bu baax xéewal yi nga xam ne suñ borom baaxoo woon na bu waxtu wii jotee mu wàcceel ñu ko muy la ci jiit ndoxum jàmm suñ borom defal ñu ko mu teel lool te te tooy te lewet nawet bi sotti ci jàmm te muurloo ko moom ci boppam it ñu ni ko sëriñ Maam Moor waxe ñu fasal ko ci bu baax fan wu gudd akuk wér ak mottaliku ay yéeneem ndax ku ne xam na ne yéeneem moom rëy na te yaatu na su matee ñun ñëpp suñ ajoo ngi ci biir yàlla na ko yàlla defal ak bëggam bëggu dong yëpp ngi ci biir wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. donc lu ci suñu si ko noppi muy ni ñu ko defee te mooy ñuy jàng Alxuraan ne ci biir jumaa ji ak yokk yi ak baas yi bu ko defee góor ñi ak jigéen ñi bañ a jaxasoo. waxtu jaamu bi nga xam ne suba lay doon ba bëccëg su ko defee jigéen ñoo xam daan daan baaxu siyaar itam ñi muñ la waxtu woowu rek ba ñu jàng ba noppi su defee nga xam ne ñoo ñu mën a jàng wala ñu ko mënul ca mën a def ay euh, ñaan ñu dem ci wetu sowu ba rek bu dee bañ jox soo jigéen ñi ñu baax indee xewal tam ñu ngi leen soñ ñu baax te bu gën a teele moo ca gën ngir ñu mën ko waajal ak ñi nga xam ne ñu lañ ko war a jox su ko defee bu jàng ba noppi itam ñu fas yéene dem ci yokk yi dañ fa lal ngir ñëpp mën faa jëfandikoo incha allah su ko defee daal képp ko yaa ngi ñëw daal na nga xam ne boo ñëw ba ci buntu ba daal da fekk ñu lay ngir fa nga war jublu nga mën faa jublu ba def liñ bëgg a def liñ ko war def ni ko ñu bëggee su ko defee loolu li koy mayee nag mooy ñuñ fay fekk ci bunt ya ak ñi leen fi ñu war a jëm ñu bàyyi ñoom xel ca xam ne tam ne ndigal rek moo leen fa bàyyi bu ko defee fa ñuy baaxoo joxe sarax yi tam wala addiya yi moom ca penku ba muy jullikaay fi ñu jullee it ku fa def da nga fekk ay ndaw itam incha dañ fa lépp kon ñoo ngi jégalu ci kàddu gi di ñaan yàlla ak bis ba ak def ko ni ko suñ bëggee. barakallahu kon bokki yi ngeen kàddu yaa ngoogu bàyyi ko ci kilifa yi jóge ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ñëpp nu bokk xam ne kàddu yu cant la ak kàddu yu jégalu ak kàddu yu ñaan li war ab jaam di sàlloo sant mbër ma ku sangam may bu santul fecc war ma. nu dellu si waat bayitu Serigne Bay Jaxate ba mu boole woon jégalu ak ñaan mooy naa la may nga ma tuubal naa la lii ma la mooy tey sant lii nga ma may jéggal ma may maati noo ngi dellu di ñaanal bu baax suñu borom Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te àggaleel ko yéeneem yàlla nañu yàlla déggloo pasté fam ci barke Serigne Touba nii ko Serigne Khalil doon waxee léegi nag mbooleem kër yi nga xam ne ay ay barab yoo xam ne barab bi Serigne Touba la ba ca bitim réew kër yi Serigne Touba yi ci bitim réew yëpp ñoom itam ñu ngi leen ciy soññ ku dégg ndigal li rek ci ci ndigal li nga bokk yàlla na ko yàlla nangul ci barke Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu